الكريم سلما على استقالي بفرود وسمن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسمن سكرت لأنه قد سخن gannaaw dakarou Gama Bawoo Diourbel nag moo nekk ñaari raison bi ëpp li mu doomu aadama yu ci Sénégal waaye ku ne Diourbel nag sa xel dafay dem nag ci dëkku Serigne Touba bi di Touba Touba gi ami téléspectateur de la DTV ngir defee fi nag seen émission fii sans plus tarder nag dañ koy defee saa su ne dañuy dugg ci biir dëkk bi waxtaan ak askan bi xam yan ci jafé jafé yi tamit ana lan lañuy xaar comme saafara ci ñu tuké ci kilifa yi sans plus tarder mbokk yi nak dañuy dugg ci Touba daal di waxtaan ak askan bi légui légui lay doon في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع والي وسابي النجوم الخاعر النفوس والرجيم هساوين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا يحاب وإنني يا بر يا كريم دائن وعن شكرك الله tuba Nek ci région bu don ñaari li diwan bi ëpp limu doomu adama yu yeewoo ci répp Sénégal ngeul képp nekk itamit ci département bu mbacké bi le dëkk bu sel nak di sancub Serigne Touba Xaadimu rasoul mi xal yoonu mouride bokk momel bu biir dëkk nak di wuyu ci turu Abdoulahat Ka limu doomu adama yi fi yeewoo tollu ci ben million yaatuwaayam tollu ci 1607 habitants par mètre carré Daaru marnane daaru minam Gédé ngi gis ndindi abdu yooyee nag bokk ci quartier yi nga xamante ni ñoo ngi ci dëkk bu sell bii di Touba ci dëkk bi ba tey ñu ràññee fi ne jënd ak njaay lu fi am doole la loolu dem ak dikk it tamit doon na lu fi dox loolu ñu gis ni i tamit dëkk bi at mu ne dafay gën di yokk waaye yokkute boobee nag dafay ànd ak ak jafe-jafeem. mais bi dëgg bu ñu ko waxee ku baax bi nga xam ne moo nekk ci ci bi. canal boobu dëkk bi ni mu toll ak képp ku xam Touba Touba ni muy màggee kenn ku nekk xam ne ndox ma fay ndox may ma ñu yóbbu ca canal ba xajuf kon foofu mu nekk dèjà rek du sécurité pour pour que bi nekk foofu dañ ko faa war a jëlee même buñ ko fa jëlee war nañoo def ay pexe yoo xam ne nii lañ fay roof ci ay ay ay ay maanaam ay canalisation muy dugg ci muy dugg ci canal bi war ñuy fexe lu gën a gaaw loolu di génn parce que waxtu feesee rek. koñ bi mom luma danaka man na la lima luma ñat téméré kër yo xam seeni xam nañ leen di leen recenser at mu jot dañuy genn seeni kër ta canal boba moy moy moy fess bu fessé am nañu wax dañuy ubbi canal ba mu top yoon yu ñew am ño xam ñu wax canal bi bu fessé da du attane mu toj koñ bay ni kenn dess fi ñepp pa dem day ni ban la ba paré boy tak sa tam tarxis ngay def man nga dam lepp ngi ci biir da ay mag ak ñepp genn génn ba maga dé da posi fess del day ball ba ca ya leg nun lañ fay mëna dëkke da yar ay xalé néeg fess del keur go goo dugg fi na ni kenn neeku fa ñepp geen génn da màggal gaa yi gan yi ko wax ñun la seen koñ yi day am ndox koy gis. màggal Tuubaa gi rek moo ñu ñor moom doo moo ñu jaaxal fi ni ci ndox mi bu la ndox bi mbedd mi sax mën nañ feeral suñu bisa kër waaye màggal Tuubaa gi di ñew kan bu ñu am keur gi day fees dell macha allah fu na suñu mbokk yi fu na la jëm ci fii rek la ñu am jëkkër gaa yi ni daal amuñu fenn jaaxle rek ku ñu dimbali métti na ba fekk yëpp daaw nii la ñu nekk woon ñun ñu ñaan def lu nañu def da ngay sonn xuus ngay def suñ daal yeeg ay dagg da ngay daan sa ci biir ndox mi ndox mu neex sa boo koy wuti da ngay dem yenn ay paan ñëw ay sant yi sonn lan def. daaw ministre bi ñëw na fi bi mu fiy ñëw daaw ndox mi sax wax dëgg yàlla ren daaw gënoon a métti foofu bi fi ñëwee toog ci kanamu sëriñ bi ni ko. danañ def ñaari milliards yoo xamante ni benn milliard bi danañ fexe ba def danañ def beneen tuyau ci bi danañ def beneen tuyau ci canal boo xamante ni danañ fexe ba buñ ko mënta gas ba mu àgg Daaru Rahmaan tamit danañ laal canal bi ci kaw def fa beneen beneen beneen moto beneen pompe machine à pompe boo xamante ni dana tax ndox ma mën a gaaw a jóge foofu dem Daaru Rahmaan waaye foofu tamit am na ñu fi seetluwaat mooy ñoom ñoom ñoo yore état. ñun ñi nga xam ne si ni jànguñ defuñu dara xam nañ ni ñoom war nañoo xam ndox may jóge ci canal bi xajutul Darou Rahmane kon ñoom waroon nañoo programmer buñ nee dañuy dañuy jëleel ndox mi lu gën a gaaw fee mu jóge fa di dem Darou Rahmane war nañoo teel a programmer ndox muy jóge waat Darou Rahmane ndax Darou Rahmane loolu ndox moom attantu daaw def waaye loolu ñun man daaw topp naa canal ba mu àgg da ba mu àgg Darou Rahmane ba mu àgg Darou Rahmane waaye canal yu ndaw a ndaw a ndaw la ak dëkk bi ni mu toll ak ni muy màggee bareen ji bi bareen euh, euh, boobu ñu fa def di gaawal ndox mi tax na ba canal ba ba mu tojee gis nga ko tool sëñ Cheikh eh, Daaru Rahmaan yëpp dafa dafa yàqu kon nag loolu moom état daf cee war a jug te dëkk bi dafa toll foo xamante si nii dëkk bi dafa dafa dëkk bi day màgg lool dëkk bi ni muy màggee ak ni ñi ni ñu fiy dëkk see dafa ëpp doole matuwaay yi ñu war a jël ci aw aw dëkkin ndax dëkk bala bala ngaa dëkk ci benn quartier état war na faa ñëw moo yëlif ñëpp lotise ko maanaam créé fa loo xam ne si nii maanaam bu ñuy def assainissement danañ ko fa a def te duñu am te duñu am benn jafe-jafe waaye dëkk bi ni ñuy dëkkee dañ leen a seetaan rek bàyyi ab laat war na mën a xuus ci ndox mi comme jox nañ koy daal mu mën a lu fi daal ba muy demit kàddoom li mu mujj wax mooy jënd na ay peer yu jox ko ay nit mais jëndul ñu ko ñun jënd loonu ko bàyyi laat jënd loonu ko de man la Abdoulaye Ndongal Mamadou Dédé réew ma xasuma waaye li ma lay waxal ne la dëkk bi ñun ñii ci lañ bokk say doomi ndey lañ say doomi bàyyi lanu loo xamul loo xamul yërëm mu ngir yàlla yërëm askan wi li nga mënut ñi ñu sës yow nañ la koy wax li nga mënut état na la na la dimbali nga di ko wax mu la ci dimbali waaye bu la wax baax na fekk jumaa jaag la ko war a baax wala wala wala dëkk bi fu fépp ak jumaa war a yem ci baaxaay. bu ndimbalante amoon rek yëpp du am ci dëkk bi du fi am koñ bii dara lu fi def gisuma ko ndox ndox maa ngi nii kenn waxula ko daaw it leen lañ woon ci ndox mi kenn waxula ko ñi nga xam te ni ñoo amoon taataay sax daaw am na ci ñu ne mi waa volontaire woon di leen bind ba liñ doon jot joxe ñu jot ci am. ñi ci dess nga xamni ne taxawuma len sax amuñ amuñ ku len jox dara jotuñ dara te gis nga ndox mi yow fim mu yem gis nga fima la won gis nga ndox mi ci buntu kër yi ni mer mom wax dug yalla bu fekke yalla rek la waxal fi mom di yon da Rahman di def fi dara. buntu bu ne ndox la yon da Rahman amul fo jaar ci amoo ndox fo jaar ndox la xare yi nag demal nañu fi nañu ñepp andon dem ci maire bi pour bëgg suuf waye amuñu suuf ci andi lu ñu tam machine pour pour nu pour nu pour nu pompe ndox mais defu ci benn jéego abdullah Ka gone yi demoon nañ fa sax man mi dama na fa maa nekkoon ci mbale mi dem nañu fa ba ñu bindoon leen waye suuf ko fi pompe ko fi dara ko fi yoon dar rahman dal ngeen ko ñu def fi ba ñaari ko ken amut foo am ken kenn amut foo aw waaw jërëjëf. képp wax ne askan yu maire bi de la setan ah da nga wax lu la neex. ndax maire bi mu ci man benn mi moom xam ne kenn ku ne xam ne ne maire bi moom mënut satisfaire ñëpp waaye lim ci man mi ngi koy def ndax mënut a weesu jënd ay pompe euh, jox ko ni ñi dajale association yi nga xam ne ñoo fi nekk ci dëkk bi yaay ay jeunes yu am bonne volonté yu am volonté ngir liggéeyal seeni askan ñu woo leen recruter leen ca biir commune ba waxtaan ak ñoom ñu wax seen i jafe-jafe ne sunu am na loo xam ne daal sunu ko amee lii ak lii dana jàpp ci mbind mi kenn ku nekk jàpp ci bañ ko defee ñu lim ay machine ne dañoo bëgg machine yu pompe di génnee ndox mi ci kër yi mu mën a dem ci fi nga xam ne fi la jëm bañ ko defee ñu jënd ay machine commune bi ci boppam jënd loo xam ne ni nga ni daaw jëndoon na luñ toll leen nii mu jëndaan lu war a toll ci ñaar fukki machine wala lu ko commandé waat yeneen jox ko association yi kenn ku nekk njox la benn gi jëmee ci sa gox jëmee sa koñ di génnee loolu nag naa ne kon bu ko maire bi maire bi defee maire bi mu ngi taxaw ngir jàppale askan wi taxawaat itam wëlbati képp koo xam ne am nga jafe-jafe ci amoo foo dëkkit ñëwal ci mairie bi boo ñëwee ni ñu ko defe woon daaw eh, génnee leen parce que keroog bu daje bi amee am na association yoo xam ne dañu remercier maire bi remercier ma maire bi ne daaw bi ñu amee jafe-jafe ku bëgg a génn maire bi moo la jox oto jox la camion wóbbu la fenn nga bër faa nekk loolu itam ren ji loolu lañ tàllalaat loxo ko am jafe-jafe ñu jël ay oto teg ku bëgg dem ñu seet fu ñu la mën a yóbbu moo xam ci école yi la moo xam ci yeneen kër yu ñu leen àbbal waaye kenn ku nekk xam na ne période bi ñu ren moom day période màggal période màggal li ñu dajoon daaw mën a abbay kër dinañ ko jox ren kenn ku nekk kër ga nga doon able tëjoon ko yaa ngi fa yéene ñëw màggal si ci kon le ren abbu kër di ko joxe dana jafe li nga xam ne moo fi am mooy école yi école yi itam li ci ëpp mooy dal yu bi nga xam ne lu mel ni ay gendarmerie kay police ak yenn yi ci daal daan taa jafe-jafe am loolu nag moo waral ñu naan jafe la mais assistance su euh, commune bi moom dëgg yàlla présenté wu na taxaw na ki mbenn mi ngir jàppale len Touba ca kanam mom jambar la ñom ñi ngi liggey ñi ngi dimbali wa dekk bi di dimbali neew ju doole yi. Touba ci kanam li jëk def moy def opération wallu jël ay pompe machine pompe yu bare bare and ak ay câble and ak euh, bepp jumtukaay kay bo xane war nañu and ak mom wut équipe bo xane tam suba ak ngoon guddeeg bëccëg dañuy xey ci fexé ba nit ñu génnoon seen kër ñu man ca delu waye tam dañuy xey ci fexé ba mbedd yoy nga xane kenn awatu ci won ñi fexé bañ man ca jaar Touba ci kanam liggéey ci liggéey bu mucc ayib ba fi may wax ak yow ni nit ñi ñu tannon ñu war na ci liggéey bobu ñu ngi ci bi terrain liggéey ci lañu jitu jital ko ci itam ci won boole itam daw di wut aw ndax ñu ci bari bari ndox mi yaq seen i kër noonu seen dund te itam mënatuñoo liggéey yi ñu leen di jappalé ci ñu mën di am lu ñuy xewlo rawat na jamono magal ak bu jàlleeg lepp dal tuba ci kanam amna ab taxaway bu muy def ci poosub ñi nga xam wa ñoo dëkkee ci fofa waye itam mu ngi am taxaway fexé ba nit ñu dellu seen i kër waaye am bu am solo itam ngir yoon yoy nga xam ko abandonné kenn mënu ci jaar itam ñi cey def opération walu bu am solo ngir ko mën di ko gëna sonal fi mu toll nii dañ ko fay defoon ngir maanaam ngir ngir mu dimbaluñ waaye ci li gën a sonal ci ci gën a sonal ci la maanaam maanaam tali bi fi mu toll nii bu njëkk benn tali bi benn voie bi mu fi daan nekk ni muy xatee nii ni ni nii nii bu bi fi benn voie bi daan nekk daawuñu am jafe-jafe yooyu boo xasee jógee gaaras Dakar ba xas yëg tali bi yow jeex na man ngaa jóge gaaras Dakar jëm yoon yoon gi juróomi waxtu man nga ko am man bi muy nekk benn fois daa nga mën a jàdd fii yëpp booba nawet mën naa mën naa am tiw dañ daan mën a tegg di dem mais biñ xasee defar tali bi benn fois boo xam da dem benn mbedd ñaari mbedd sax ñu may la pour kam nga mën a jàdd lool lool lool loolu amutut temps mécaniciens nga xam ne ñoo nekk ci kaw tali maanaam daal ñi nekk ci dëkk bi sonn nañ lool des nga xam ne dañ leen a boole ak njaboot gi ñoo ñoom dañuy dunde sëñ bi waaye dundewuñ dëkk bi dañuy dunde dëkk bi dañuy dunde dëkk bi waaye dundaluñ dëkk bi ah ci wàll gu mën doon bu dee chef de village yi fi nekk chef de quartier fi jiital ñu yor fi kàddu ñëpp dañuy dunde dëkk bi waaye dundaluñ dëkk bi maanaam benn ci màggal gii la tax a ñëw di laaj même li nga xam ni gouvernement bi di ko yóbbante yónnee ba ci radu yi nga xam te ni mbalem Touba moo ko tax di jóg lenn loo ci xam te ni danañ ko jox waa dëkk bi ñu di ko utiliser mu ndax bari na ci gaañ yoo xam ne ci radu yeeg peel yeeg pikk yeeg yi suñ ne ñoom ñoo ko séddoo ci seen biir di ko jaayiwaat. so demee ci marché yi ta tàmbali ko fay gis té chaque jour gouvernement bi fi indi lo xamni kenn du xam ni mu toll soo ci kër seigne touba gee suñu pé da ngay gis ñu di ko séddoo suñ bon bi da ngay gis ño xamni dañ koy ŋàbbaat di ko jaayiwaat té dëkk bi mo tax ñu indi ko fi kon loolu euh, dëkk bi tax ñu indi ko fi dëkk bi jotu ci jotu ci ñaareel bi bourse yi ñu def bañ ko defa tané def ko ndax li tax yow bourse yi suñu la jiitalee ni lay yow chef de quartier bi nga bindu sa bop bindu sa ñett jawar wala sa ñent jawar bindu sa lu mat juróomi doom bind sa bokk ci ci yow yaakaar bourse suñ ko day wax ku neew doole tax waye ko yor ab kaat kaat ñu yor lu mat fukki keer ci Touba yor ay magasin ñew di jël ci bourse koko yaakaar taxu ñu wax bourse dama yaakaar gone ak ñaar fukki at wara tollu ci liggey koko waru ñuy wërta taxit ñuy wax bourse te ñoño ko fi jël descent yi tëj ci ba pare kër yu ñu dem di wut location caution lan ñu laaj 300000 waaw koo ne aal dañ wax naa Touba dañuy aal kër léegi kenn aaleetul caution 300000 wala ñu la léegi 10 jours 350000 wala 400000 bu dëggu 10 jours jotee da ngay génn wala 3 jours 150000 xam nga loolu tamit métti na daa pare màggal da ngay génn foos sonn nañ torop. location moom yombatu fi ndax li tax yombatu fi ñëpp dañoo daw wut si Touba. ku doon luyee këru yor kër goo xam ne ab pant la nga doon ku luyee junni fii ne suñ la waxatee léegi nga ni ñetti junni boole ko location trois mois nga may jiital boo fayut génn kon loolu moom yombatu fi te dañ daa able kër yi te yàlla tax it xam nga kon moom dimbal jeex na foofu foofu moom dimbal jeex na fi tàkk ndax dañ daa able kër yàlla tax te léegi moom mënatoo gis ku la abal kër même location moom da ngay far trois mois jiital soo mënta fay trois mois jiital ñoom ñoo du nga génn together. metti lool lool suñu xale yu ñeenti rubi naa ngi ci kër gi te benn xel ci fun kar ba defee ni foofa la mun le dara du am ab jeeg tëddatu fi nelaw gone gu góor tëddatu fi nelaw mag tëddatu fi nelaw lu gone tuut tuut suñu gone yii ku ne am nga si wax sa ndaw soo attan root na noo roota roota root bay bëgg a dee ñun waa te Darou sunoo te mosunoo ndox nag waaye nag ñetti at yi moom ni ñuy jànkonteel ñoo yàlla rek ñoo xam ñun am benn heure daana def bu 3 heures du matin jotee xale góor yi yéen waaye lu mat ñeenti weer ak nii ab ndox xeliwu ko xeliwul dara parce que bii boo dee xool rek am naa sàmbaree boo xam damaa demoon uti ji ko sama benn xarit moo ma ko jox léegi bi ma demee di uti ko maa ngi koy rob ba 4 heures mais sàmbaree bi dafa mujjee bënn xam nga ku toog di fanaanee xoole ba 4 heures nga doog di amaat beneen sàmbaree euh, ci bëccëg laa demaat di ut solution pour mën koo defaraat mu ngi ne ñu teg ci biir pour di ko préparer waat pour mën ci ut ndox ak yeneen bouteilles yoo xamante ni dinaa si mën a pour gani màggal gi mais bu doon suñu jëmmi bopp rek comme ni ma def nii mën naa ko def maa ngi nii nga àbb sama jàppe dem ci ku ma tànne ko am bassin bu ma demee sangu foofu boobu sangoo samay waagar xëy na ñoom dun mën a dem sangu foofu mais danañ mën a dem duy fa seen ay sàttala ak seen ay bureau ñëw si kër gi pour man si sangu seen yaram mën a set nelawatuñ ba yaan lool ndax manqué ndox ñun jigéen maa day taal a feebar nii ak ndox a fexe a egsi dañuy root di fi sotti sonn am loo xam nii ñeneen ñoo bu dee wàllu ndox mi ñun dañ ciy jaay bay suñu wàll comme Sëriñ Muntaxa moo ñu waxoon ne ñu ni ngeen ci jàpp bu baax ñu ciy bay suñu wàll waaye dëgg-dëgg maawu rahma mooy ki nga xam ne ali moo ko moo ko yor moo yor ndox mi ñun nag liñ ci mën ni koy def wut ay nit di leen ci jàppale loolu itam li ko amal mooy dafa am forage yoo xam ne dañoo nekkoon bees di débit am yoo xam ne dañoo paanoon mu mel ne euh, bu dee daaru minam ba jëm xaayara forage bi nga xam ne moo leen yoroon muy forage su bi nekk université nga xam ne day ñëw ba foofu ak bu nekk xaayara moo amoon ay jafe-jafe ci yaakaar naa ne jafe-jafe ñu ngi ci woon di ko saafara ci jàpp naa ne balaa màggal incha allah dana war a saafara ci ni ko hydraulique waxee effort euh, waxee ko ni nga xam ne boobu loolu lépp nag commune bi moom fañ ca mën a taxaw man cee taxaw ndax nee na leen groupe yi dañ en général boo ñàkkee essence wala dara coupure bu amee rek ndox dootu ñëw waaye commune bi moom taxaw na def ci ay batterie ci kuri bi def ci essence ba nga xam ne loolu lépp lu mën kon li ci commune bi war a taxawee moom mi ngi ko ci taxaw

Touba koñ Kër Niang mooy koñ bi gën a manqué éclairage ci Touba mooy koñ ko mooy koñ bi ko gën a manqué ci Touba bokk na ci koñ bi gën a manqué éclairage ci Touba di koñ bi gën a ëpp insécurité waroon na nekk koñ boo xam ne jamono bu ne lamp yi moom maam bëccëg gi sax xëy na même lamp yi bu mënoon di tàkk bëccëg sax moo gën te bëccëg guddi boo fi jaaroon bëri na ci koñ yoo xam ne dafa xaw a waar te dafa bëri lu mu occupé loo xam ne jariñu lu bari maanaam dafa bëri ay espace yoo xam ne ay vide la te espace saabu bu rek lu ci mën a dugg day bari ndaxte foo xam ne si ay bandi kese moo fa dëkk ak i assassin ñun moom lañ dëkkal mën na ne fii nii boo fi duggee ñu fi def lu ne maanaam looy xalaat ne ci lu ñaaw muy xeeti ay tux lu ñuy naan ak ba ci rey nit am na biir Touba gi te loolu ñaaw na noonu lool ci fu ñuy tudd di tudd Touba nit nit ñi nag ay bandi ñi ngi jóge fu ne bu ñëwee fii la ñuy dugg si xam ne fa dem ba faat bakkan di ay violé nit di fi rey ay nit loolu xam ne sëñ bi ñaawlu na trop te ñun mun ñoom lu gën fi wala lépp fii suñu xel nag ñun ñii di fi liggéey dalut benn yoon dëgg na nag bëggoon nañ koo saafara waaye comme que dañoo am ay kilifa te kilifa yu jugoon nañ wax nañ ñaari fan ñetti fan bàyyiwaat nañ ba fii may waxee yow booy ñu ngi fii ci biir tabax boo duggee fekk leen fi kilifa yi ñoom police ñëwoon na fi toog fi ñaari fan ñetti fan jóge ba fii may waxee yow boo demee ci biir léegi fekk leen fi te xam ne loolu du dëgg du yoon. dañ ko fi mës a def ñoom seen jëmmi bopp am ñu leen jàppal tànk ñu pelante ñu tribunal dama imaginer agresseur buy dem bay euh, ak waa population bi dama ñoom tribunal man mii sama rakk leen sama ñaar rakk lañ poroon plainte ñu dem ba tribunal ñu taxaw ñu taxaw ñu amuñu kenn ku ñu jàppale. moo tax nag ñu ñu def attention ci xeex bi ñuy xeex ak ñun mais buñ ñu bàyyi woon ñun kese ak ñoom jóg nañ si bu yàgg yàgg ginnaaw nag dëkk bi dafa am kilifa am borom. fan yi ñu fi rayee xale bi ñun fexe nañ ànd ak délégué quartier délégué quartier bi moom wax dëgg yàlla jàmbaar la dem nañ ba gis sëñ Muntaxa moom nee na yëg na ko incha allah dina wowal maire bi laat ka dinañ ko toj waaye boobu ba léegi gisaat nañ nag ci internet bi Serigne Bassirou Abdou Khadir wax ci ñu dinañ toj tabax yi waaye boobu ba léegi nii gisuñu benn solution. ci nga nekk ak ay doomu aadama nekk biir Touba gii loolu daal sëñ bi naqar nañ trop tey ñaawlu nañ ko. marché ba moom dama jàpp mooy duutu baax ndax nañu ko nattee mu baaxul marché boo xamante ne euh, diggante place ak place ab burwet xaju fa kooku dañ koy wax waaye place bu baaxul li may wax nag dama koo wax ngir. bëgg ñu ñu def ci ñu am ci xam-xam dox ci moo tax ma di jeex waaye du saboté du dara marché boobu mom aw turu marché fa nekk waaye du dara de rien du tout ndax rey nit ak jaay drogue ak yu yooyu ku jóg fa ngeen gi nga ni fa la ñuy làqatoo si fi jamono sax ñoom dégg naa waa Xudaamul fa di fa fanaan ak def ànd ak ñoom mu jóob jaww ña fa di fa fanaan ak yooyu ndax sécurité foofu waaye loolu loolu sottalu ko tabax yoo xamante ni ëpp na mille tabax yoo xamante ni daanaka moo marché occas bi te euh, diggante place ak morom ja dégg nga maanaam euh, ab ruret sax xaju fi waaye kooku loolu nan lañ fay liggéey kenn mënu faa liggéey li ma jàpp ne moom la ñu war a def dëkk bi amul benn bayal bayal boobu fi desoon dañu ko waroon a toj maasale place yëpp ba mu yegg ñu bàyyee ko foofa muy fu fu dëkk bi di nooyee waaw jërul sensibiliser ndax lu ne fang kenn du ko jeex ab jant kenn lu ne fangaaral wala nga seen muy taw di soti nga nan ñu nan la dawal dawal balatau taw bee ñew wala ñu nan la moytu ji lool koy du kenn lu ñuy sensibiliser amul sensibiliser parce que gis nañu marché bi lak na lakati fi lakati fi ay yoon yoon liko waral manam euh, coupe circuit ñi nan coupe circuit la ñu nang ba légui nak man mënumaa xam lako lak waye de toutes les mille manières moy bu fi sapeur pompier bëggono wala ambulance mbaa du fi mëna loolu mooy problème bi amul benn autorité yéen ñi jaar ngeen fi xam ngeen mu demee mën ngeen koo filmer wane ko loolu kenn ndax lu ne kenn du ko jeex kenn du jàkkaarloog jant bi ñu naan la ndax naan la jant baa nga ne kay maa tey kay moo fi nekk waaye xam naa ne jant baa nga ne moom voilà. sunu yar ak sunu teggin mayuñu ko waaye bëri waanu lu ñuy wax ci gox bi ñu ngi fi lu existe la te jàpp naa ni it xëy na ñi ko war a yëg bu ñu ko yëgoon des na ko saafara. loolu ci. ko tëri nañ ci ay réunion conseil municipal bi daje na ci bureau municipal bi daje na ci waxtaan nañ ci proposition yi ba jël jël nañ ko ba teg nañ ko ci loxol kilifa gi kilifa gi am na lum ñu ci digal loola incha allah dañ ci fas yéene jaar buñ ca jaaree jàpp naa ne loolu nga xam ne mooy jafe-jafe ci askan wi di ko dund loolu dana fa jeex. feebar faju jafe na leen lool muy xale muy mag ak kër gi ñu taxaloon nii borom kër gi dafa mujj sax dafa am ay problème dafa mujj jaay kër gi ndax ab taawam bu góor maa retaali ton na nee dafa am feebaru xel man dama daan tëgg du guddi ba pare ànd ak yaayam jël sama ndab di wër koñ bi di ko maa jaalal pour luñ ko mën a yóbbu ci sëriñ bi ko doon faj ca côté Bambay waaye xam nga rek boo amul moyen du sotti groupe yi ma bokkee yëpp dama ko ciy wax ndax man yooyu mooy sama signal ci feebar seen tànk di metti ñii am na koo xam ne Madiyaana la dëkk sax ñu ko wax Baye Sëy kooku tamit dan ma boole woon ak moom tamit dama ko doon màjjal ak moom man daal loolu daal mooy sama social ku baax kay. fi mu nekk nii boo feebaree tam boo demee ci dispensaire yi doo fa fekk garab doo fa fekk garab te doo fa fekk nag ñu la war a saytoo daan ñu saytoo ne la ndaxte daanaka nag moom garab yi moom dañu koy wax rek waaye demewul noonu waaw waaye ku ñu ci bindal ordonnance dinañu fexe ba nga jënd wax nañu ah dañu ne amali garab garab fi ñëwul lañ ñuy wax de. garab fi ñor ko lañuy wax garab du fa am moom daal xam naa ne moom yaay yaay dem tagg sa ticket ñu ñu ñu seet la jox la say ordonnance nga fii ci ci ci pharmacien yi waaw li nga xam ne moom lañ daan def di toqal xale yi tey ñoom def ñu tey Touba ca kanam moo ko def te Touba ca kanam fii la féete. jiraan ba tey toog ko boor bi kenn toog ko association bi nga xam ne mooy ñi am problème mu doy di roño ñoom dañoo amoon seen association boo xam ne ñoo ko doon doxalal seen bopp yàlla dogal ka ko jiite woon ci ñoom mu wàcc liggéey booba dama leen doon jàppale ci nan la ñuy def ba ba centre bañ nekk ñu am fa jàmm seenoon pajet ñu jàppale leen ci boobu jamono waxtaan na ma ak ba pa nekkoon bañ defal leen réduction boo xam ne su suñ see ci Euh, ci faj mi defaloon nañ leen soixante quinze pour cent yoo xam ne daanañ leen wàññil li nga xam ne moom la ñuy fay ci seen i analyse léeg-léeg am koo xam ne bonne volonté la ñëw ñu jënd leen ay piqûre wala ñu defal leen nangam ak nangam waaye bi ñuy dox ba si yàgg dama gis ni ñi am place buñ fajoo te bëriwuñ boobu chat machine rek moo amoon Touba dama mujj gis ne kon ñooñu ñi ngi ci jàmm mais ñi ne ci liste bi nag moo demoon ba jéggi dayoo jaaxal ñu lool nag tam. ci laa ne léegi nañ jéem a am xalaatu jéem a dox wuti ab centre boo xam ne bu mag lay doon ñu bañ cee xaar état yàlla dogal it nañ ko bëggee woon yàlla defale ñu ko noonu nañ ko defeet mooy dañ cee waxtaan ak kilifa gi fi nekk yàlla dogal ñu am barab barab bet dañ ko jox addi Serigne Touba muy barab bu cher waaye mu dend ak hôpital ba ñun tam ñu dem wax ko sëriñ bi Serigne bi yëkkati ab lim jox ma ko defe naa média yi ñu bëri yéen nañ loolu jox na ma trente millions yi ma nga tàmbali. Euh, yàlla dogalee biñ ko commencé mbooleem ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Touba lañ te am yëg-yëg bi ma yëg xaaruñu ci kenn euh, ma ciy parafito di ci gërëm euh, Saliou Mboub mi nga xam ne moo jiite Carrefour médical nga xam ne équipement yeeg jàppale ci liggéey ba ak lépp moom fam ñu fekk daa mujj ne ma da ngay arrêté bu bu laaj kenn man ma dem ba fi ma mën a yem su ko defee ci phase boobu lañ tolloon libéré nañ ko daaw waaye bañ ko libéré ba tey ben salle bi rek moy dox dañ fa defoon ñet salle yu mat muy 35 générateur yo xamne bu yëpp doxon manam askan wu bari bari dañ ci mëna jariñu ndax fi ba Linguère fi ba dara Jolof ku fa am problème roño Touba ngay ñëw te amna ci ño xamne ñanga ba Dakar ñanga ba Mbour waye Touba lañ dëkk donc kon ñun liñ ci djublu won moy am centre bo xamne c'est spécial yalla défaral nañu ko nak ndax centre bi Afrique de l'Ouest mom ñu fi doora am bu toll non kon kon yalla Touba la ko séddee kon nak ñu ci lancer appel ci eh, muy wa état ak ñi nga xam ay kilifa lañ té né ci dëkk bi té man ci dara ñu jappalé ñu ba personnel bu doy ñëw fa bo xam mbolém ñi faju da nañ ci mëna gis seen bopp rawatina ñi nga xam ñoo doon faju ay Jurbel di faju kaolak di faju Mbuur té nek ci privé ba privé bi bo cey dem 65000 ngay fay par ben essence 65000 yooyu semaine bu na yaa fay 195000 médicament yi door a ñëw loolu kenn mënu koo bariwaale wërsëg am na sax kilifa goo xam ne ñaare buy wax ak man danaan ma jalis de li ci gën a yéeme mooy day ndóolloo ab fami door a rey kim dal kon su ko defee ñu di leen bàyyi xel euh, fexe ba tamit ñi yor nguur gi ñu bañ leen fàtte fexe ba saal yooyu ñu defaroon ak machine yooyu te mu tëdd fay nelaw ñu jàppale ñu ba saal yooyu ñu doxal ko xam nga monsieur le maire moom man ñun ñun xaar ko ci dara quoi parce que dëkk moom fekkee da nga koo jiite te la nga ko war a defoo ko dun la xaar dëkk bi liñ fi gis ñëpp gisandoo dafa dañ koo négliger trop trop trop trop loolu moom ñun dëkk fi am ci lu ñu naqare trop parce que ñun doomi dëkk bi lan ñun doomi Touba lan ñun Touba ñu doo fi leen yaroo fi leen màggee bu ñu génnee dañoo voyage di kat ñëwaat Touba ñun yaa nekk fenn waaye am na lu ñu naqare ci dëkk bi trop parce ñun ko jox ñu jiitu ko yàlla seer ne mëte ko parce que ab dëkk boo ko du la joxee da génn xam li askan soxla nga nekkal leen ci waaye du ceegee nekk ci say palais nekk ci ay say kër defaroo dara dëkk bi ne ñu jox la ci benn baat rek nga sukkandiku ci baat boobu di di di di di di not di not doomu aadama yi lu mën a ñàkk la dëkk bi kenn gënuñu ko bëgg lii fi nekk dafa dañoo naqari même pas cent mètres ak jumaa ji mu ndox mi mel ne loo xam ne señ bi ay fonds yu bënn te te liggéey ko nekk lu yomb loolu dafa dafa dañoo naqari képp kuy doomu dëkk bi dana naqari xëy na na ngay étranger boo fi nekkee étranger moom dara mën na ko bañ a yittee loolu xaalis bi fi nekk waaye ñun ñi nga xam ne d'origine Touba la ko waxee naqari nañu buñ ko waxul naqari nañu waaye dëkk bu toll Touba deuxième ville de Sénégal ah waaw ba pare suñu benn mairie boo xam ne ah doxalul dara loolu nag sëñ bi dafa naqari quoi te dëkk bi dañoo am yéene mu defaru man ne maa ngi koy wax benn waa bëgg dé na ko bu buñ bëggee mu defaru chaque trois ans yu ne un un kilomètre carré bi wër jumaa ji dafa war a am pavage am am ay ay ay ay ki ay ay canalisation un kilomètre carré bi li wër jumaa ji te wër fe gis souf la mën nañ ko xol yi am na ko xaalis bi mate na ko te fas bi mën na ko pourquoi ñu toog di seetaan waaye benn mais Touba ni mu lo loo ëpp na 40 kilomètres carré sëñ bi nga jox kenn mu yilif ko xam mu ta ag fepp fépp bi mu yore bi mu sax mënu ko gérer nga bëgg koo jox mu ne maanaam da nga jox mairie sëñ bi lool nan nañ ci jógaat dëkk bi ñoko mom ta buñ sañoon day melna makk ak Madina parce que loolu borom dëkk bi ñaan señ touba lepp luñ mëna doxi ba ndox mi joggé fi gan ñi mëna a ñëw màggal ñëw ci jàmm delu ci jàmm boo gën léeg-léeg nak ñi nga xamni ne ñoo yor dëkk bi muy maire wala muy état wala ku mën di doon da ngay gis léeg-léeg ñuy def yëngu bo xamni amalon ko ci loola day gëna farato way léeg-léeg dañuy juutal li nga xamni mom lañu wara def mais jafé jafé yi ñuy dund dal mom tarna te ku ñu jappalé ñu jël na magal gi di ñëw Mustafa Jakhati fek bax nak ci dekk bu sel bi di Touba Mbacké Mom, ci tugal la nekkoon waye xalam ak xalatam yep mu ngi nekkoon ci nees lañu mëna def ba feebar faju don lu yomb nak ci dekk bu sel bi di Touba rawati nak ñi amé feebaru roño ci bisem fi ci Sénégal mu ba légui di dox ci mbir mi ni mel jéego yoyu nak mo indi tay ji ñu taxawal centre de dialyse bu jantu nek fi ci diwaan bu Touba bile centre Da daanaka am na ay saal yu xaw a takku waaye nag muy mel ni benn kepp moo ci fonctionnel te tey jii am na lu ëpp fanweer ci ay machine bëgg-bëggam nag moo di daanaka lépp di dox su ko defee nag fépp fu waay mën a am feebaru rañoo soo ñëwee nag nga daal di fi am akub te ci loolee nag mu ngi ci wéy di def ay jéego ba léegi moo waral nag muy sàkku ci kilifa yi ngir rek ñu def ci seen kéemtulaay kàttan su ko defee nag askanu tuubaa ak li ko wër mën cee jariñ kon nag ñu ciy lancé appel ci euh, muy waa état ak ñi nga xam ne ay kilifa lañ te ne ci dëkk bi te man ci dara ñu jàppale ñu ba personnel bu doy ñëw fa boo xam ne mboolem ñi faju danañ ci mën a gis seen bopp rawatina ñi nga xam ne ñoo doon fajoo ay Jurbel di fajoo Kaolack di fajoo Mbuur te nekk ca privé ba privé bi boo cay dem mille ngay fay par benn séance 65 mille yooyu semaine bu ne yaa ngi fay 195 mille médicaments yi door a ñëw loolu kenn mënu koo bariwaale wërsëg. lii nag moo tax mu doon héros du quartier. وسود والورى في الدور ومسكن المسكن الخبران ورد والإرفان ورلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنج من بدار واجعل دابا مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاهم ومسكن الإنسان والتعليم ومسكن التدريب والتبعين وجعل مسكن الخروج من سلام للنور وفي كل منزل وجل دابا مسكن اتباعي لسنة الله مسكن ابتدائي وجل يا ربي دابا مسكني في أرضنا لك وللمعزين والدعم داري عن الفجور والفسخ والباطل في الدور في الوباء tout est bien qui finit bien amis téléspectateurs de la DTV ñoo ngi woon fii nag ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké waxtaan nañ fi ak askan bi fi yeewoo dégg ngeen seen i jafe-jafe ba ca gën a fës rek mooy li jëm ci mbënd yi nga xamante ni fu mu toll nii nag moo leen tere nelaw tax na nag ba ay junni junni kër daanaka ña fay yeewoo bàyyi nañ ko fa dem uti li gën. ñafay tok di muñ nak xaar ay qui ci kilifa yi. ñu jappé nak yoyé cadeau woté du tabbi ben yoon ci nopp ki li ci des rek moy nak di souhaiter un très bon magal Touba waye aussi di len jox nak dig dajé fi 15 jours ci sen émission fi dëkk ni ma koy waxé émission bi tax benn quartier dootu leen umpati fi ci Sénégal.